yoof awma ma seen fay yoof danaa jéem mais xam naa ne duma leen mën a fay moom Amadou wax ma ko yoof desalatuñ ma dara man maa jéem mais xam naa ne duma leen mën a dab mukk làkkoon fàkkoon ñàkkoon may jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo kilifa Yoff xam naa ne ñu ngi si ndaje bi waa Fere Yoff maa ngi leen di bu baax di rafetlu seen taxawaay di jël nuyoo Yoff yëpp di ko teg ci seen loxo ngeen joxal ma ko mag bu Yoff ki gën a mag si Yoff ki gën tuuti si Yoff si âge ma leen di remercier vous comprendrez que tey je suis ému parce que de mémoire d'homme politique Amadou vous avez raison ce que j'ai vu à Yoff aujourd'hui je ne l'ai jamais vu maa ngi leen remercier bu baax mais l'enjeu est de taille mais la circonstance l'exigeait. mais la perspective l'impose aussi. maa ngi leen di remercier. l'enjeu est de taille j'ai dit. la circonstance j'ai dit mais la perspective aussi. Yoff Ouah, Yoff Ouaze. quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est Dakar. Dakar, la ville capitale du Sénégal. Dakar, mooy capitalu réew mi. Dakar dafa jar ñu xeexal ko. Dakar dañ ko war a yóbbu fa mu newoon. ki ñu tuddee place bii. mooy sama nijaay Mamadou Diop kooku ñun xam nañ yan sacrifice la def pour Dakar nekkoon fa mu ne woon mais tey nag merci ñu war a corriger lu bëri ñu war a corriger yóbbuwaat Dakar mu nekk la belle capitale bi Afrique bi yëpp naw bi réew mi naw mu dugg dans le train de l'émergence un Dakar émergent mais am ñu ne ñoom duñ bàyyi Dakar mu dugg ci train émergence parce que Dakar jaasi la pour ñoom Dakar bazoka la pour ñoom Dakar pistolet pour ñoom mais Dakar ascenseur la escalier la pour ñoom pour que ñu yegg fa ñu bëgg a ñun Dakar bi ñu bëgg defar mooy Dakar bu bees. Dakar bu bees. Dakar bu bees mooy Dakar bi xamante ne waa Yoff fa a gunge ma bu bees mooy Dakar bi xamante ne waa Parcelles Assainies dañ ma bëgg gunge ma yegg fa Dakar bu bees mooy Dakar bi waa Ngor ne dañ may gunge ma dem waa Wakam wax ko waa Grand wax ko waa Plateau partout dans Dakar ñu ne dañuy gunge Abdoulaye Diouf Sarr mu dem Dakar bu bees

dalañu ne maire Dakar Abdoulaye Diouf Sarr ne maire Dakar Abdoulaye Diouf la tudd le préfet de Dakar dana convoquer le conseil municipal de Dakar pour installer bés bu muy jàpp le maire Dakar qui lu tax ma tey kontaan naa parce que bés boobu ma gis tey gëm naa bandoo buñ may takkal buñ ko pësee ñu ne ana yoof si biir danañ ne yoof moo gën a bëri si bandoo ba bond dalal ngeen sama xel waa parcelle ne duñ ko nangu parce que ñoom dem ñuy posé si balance bi. kon nag. kon nag. garan bi def ne Malang Njariñ Jaw magam Sumbar laa Kalma xam Demba Mbaye Ndiame Sass. guddi na tey dañoo am tout de suite benn réunion te suba dañu war a préparer suñu meeting de clôture ma leen fay invité match bi tes na mais coup de sifflet final bi coup de sifflet final bi dañ ko xaar marquage à la culotte jusqu'à la ngay remercier waxal ma waa géej te dimanche moom kuy dem géej na nga voté ba pare ba assuré ko dooroo leen géej ba tey dara dootu boobu na yàgg may terminer nag par leen mais dama am lu ma dégg gars yi ëpp na mbërëm ëpp na mbërëm doomu ñay ëpp na mbërëm jeex na galan bi mooy que ne notre victoire est désormais protégée parce que